What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? So I'm a guy. <laughs> yeah, before going faster, allow me to reintroduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, the city, my town. <laughs> yeah, they call my pap J, Ibrahim Mondao, Mustafa Man from Belgium, Dagoud from Belgium. You know what I'm saying? They call my Gua Diaspora, they call my Njawar, Njawar Sao, S-A-O, <laughs> Njawar Sandoburar. They call my guy, Ismail Diallo, Abubakar Diallo from Russia. They call my Nyonyop. plus particulièrement nag ma fay may euh, les victimes tous ceux qui sont victimes d'agression une fois dans leur vie tu vois di ko may gars yi euh, comment dirais-je euh, les victimes euh, les ñi nekk victimes mu agré kii bi agression bi fële ca tu vois mi sëñ Abdoul Aziz boobu noonu ak doomam tu vois 18 ans ñoom laay may vidéo bi quoi tu vois parce que démb damay xool affaire yi gis kii bi si news yi tu vois mais dafa mel ni sax sama rakk bu ñu bokk ba mu bokkal ndey ak lañ ko def quoi tu vois tellement dama mënul concevoir man yenn genre ñaaw téef yi ñenn ñaaw ñaaw téef yi nu ko nit mën a entale teg moroomu doomu aadama am quoi tu vois yow ñëw nga si kër jàmbur tu vois agressé ko isnl yamu ci nga def koy fracture crânienne dóor la ñoom ñaar ñëpp a fale rey kenn quoi tu vois te euh, je suis bien c'est bien beau quoi tu vois ñu naan droit de rëbës ña fa nekk prisonniers yi seen condition d'accord yenn conditions yi yenn euh, prisonniers yi mën nañ bañ am yenn conditions yoo xam ne tey maanaam euh, parce kii sàcc ginnaar ñu tëj ko wala kii këf kalpe yooyu d'accord mën nañ jël sax teg ko feneen mais ñii il mérite xool d'être pendu ñii dañ war a rey parce que lu ñu ay nit parce que nit mooy kii af kii jëfandikoo jëfu jëfu nit mais ku ànd ak du ko def tu vois nit dem ci diaspora euh, États-Unis job fa job fa ñëw këram nam ma ay mbokkam bëgg a ñëw fekk jàpp di vanté woon ne Sénégal dëkku jàmm la ngeen fekk fëgg ko nuitamment agressé ko réale doomam ba pare jël ay millions moom jël ay noonu yàlla nañ feeñ balaa weer bi dee quoi barke rasulullah te bu ñu feeñee barke rasulullah gars yi yi jël leen seen ñi boo leen jàppee nga leen dóor dóor ba police nga téye leen foofu chaque jour nga dóoraat leen boo leen rëbës chaque semaine nga leen leen dóor yóbbu leen tàmbaat di leen liggéeyloo boo leen ko defee pendant deux ans bañ defee jël leen fusillé leen rey leen parce que ñi ñoo matte yeeg mbóot yi si euh, société bi ñoom noonu lañ a l'avenir qui a l'avenir nan fekk ko rey ko comme ça dem def ba pare génn pare di tiré ay tiré en l'air di glorifié wu quoi ma ne ku nekk ci western ah balaa da ñaan ay cleaning day ay cleaning mais lii la war a clean les malfrats yi ne fii nii chaque jour agression chaque jour agression population bi liggéey amatu booy liggéey fajar amatoo droit sax génn jël jógee sa fajar dem jëli oto ah booy jël oto kolobaan wala feneen da ngay tiit booy dox ci pont yi pont caaro yeeg feneen da ngay tiit kon ñu bëri yu bëri sañoo fa dem parce que amul sécurité te la pour ñaata la ñuy recruter ci la police bi recruter mais ñooñu xaaruñu def seen liggéey mais da doon sillonné quartier yi yamba bi mi ngi ne fi gan agression bi mi ngi ne gàññi booy tiit pour se rendre d'un lieu à un autre y a bi bëri fii tu vois mi li ñi ñii si la lañ ko teg si la lañ ko teg yóbbu te à la fleur de son âge ñu fekk fa rey ko papam ay séquelles jël xaalisam dem tu ñi ngay jël boole ko ay Bougazelli parce que ñom ñëpp ñoo bokk même sac tek leen ko infliger ñi seen life waratul neex ñu gis ñu gis jant bi seen life waratul neex mais lepp ñu lo quoi parce que tey bu ak lepp lépp ku ray ñu ray la ah wala ku sàcc ñu dagg sa loxo mooy loolu noonu yàlla moo ñu gën a xam règlement li tax mu jël loolu xam na lu tax parce que xam na ni suñu suñu suñu biir am ay mala mais léegi Sénégal pour un rien on te tue pour un rien on te tue ah da ngay jaay café Touba même café Touba ñu jam ray kooku man j'ai connu trois personnes yu ray nit même pas un an def ñu ko kaso génnaat di dox mais c'est pas normal les qui mon quoi Qui C'est ce Mais mais il faut donner l'exemple il faut donner l'exemple ñu a xam suñu nañ daggal loxo bi parce que da ngay sa loxo ça. ñu mais da ngay ça. nit nga ko ça. an deux ans ñu ça. médiation ñu fait. ça. ah jot sa arme blanche fekk benn ça. def ni nga ko pas deux ans ñu ça. mais c'est encourager le crime c'est encourager le crime ça. gars toujours qui

loolu bi nga xamante Sénégal léegi nii ku sàcc ñu dagg sa loxo ah nga dese benn ah, bi ngay laabo wala nag ngeen baal ma terme bi boo balaa nga sàccat di nga xool bu fekkee dañu gis ku rey nit janvier février ñu teg ko taj rey nañ ko ku fi kuy xeexate nii waxuma la pousse paaka mais pousse sa ah, fekk un rey seen bopp ñëw am diine yor seen i course di ñaan bàyyi ñas am vacance bëgg a ñëw gën a delluwaat seen amaan ngeen fekk leen fa rey leen fa ah te d'après li ñu wax si info yi xamante hôpital la ñuy bañ hôpital régional de Thiès boy bi yegg ñoom yegg nañ fa 4 h du matin pour ñu la leen 11 h que des criminels ñooñu ñun bu fekkee loolu dafa am yéen a gën criminel sax yeen yéen gëna nek a nekk criminel euh, gars yi def agression bi mais c'est pas normal yeen a ngi nag di jéem a apporter démentir mais on sait ce qui se passe dans les hôpitaux on sait ce qui se passe dans les hôpitaux hôpitaux yeen yéen leen nit ñi yeen a ñu ci guichet banque yeen yéen a yem da ngeen réew ba neub man dem na fi hôpital di jël perfusion ñaman bu ñëwati bo ñëw dal ñëw matin bi bu ñëw soirée bi parce que soirée bi moom fa lañuy tok dajaloo ci cour bi di waxtaan te boo ñëwee diggante 1h ba 15h heures ñu jël pause ah ex ex cas hôpitaux war na jël pause mais dafa war am ay relais man mi deful administration bu ñii jël pause ñii war nañu relais ça doit être une continuité bu ñi jëlee pause ñi ñi parce que feebar bi daaneel nit du xool ndax 15 heures la maladie peut peut t'abattre tout moment mais joobu leen ko amul xaalis doo leen ko faj man li gars gëm naa ko booy mën nañu fa si ngeen ne fi na doo leen laal parce que amul xaalis wala nii vous êtes des ñu bëri ñu dee yéen yéen feebar heure bu mu lay dal dara fekk na sa poche amal dara mais léegi ngeen ko doon faj ba pare soo ko xool leneen ak leneen carte d'identité ak nu muy fay modalité de paiement yi ah da ngeen couverture maladie pour universelle ay couverture maladie euh, euh, choisie way ah wala personnalisé way si boo nekkee baadoo la xaaj boo feebaree dee nga wala madame Faye bu yëgul say feebar yow dee nga alku nga ah yoo xam ne dëkk yoo xam ne toujours mooy li may wax rek feebar bu lu mën wala leneen district bi a jege lay yóbbu après hôpital daan teg CTO donc loolu man loolu lu ma gëm la parce que yéen ñi ne si hôpitaux yi ngeen xamadi da ngeen réew médecins yi gën a réew boo leen waatee seen boobu nag gëm naa ngeen koy fàtte c'est pas normal faj leen nit ñi après ngeen apporté demande dara sampal ko prévision faj ko soog wax leen mais bu duñ ko laal mais vous êtes des criminels waata leen woon loolu noonu booy bi ñu agressé ko il vient muy perte sang ngeen bàyyi ko fa mais bu minutes sax day dee hémorragie boobu kenn mënu ko entre après ngeen gën noonu bu mu ñëw nii fan rek ngeen def yéen ñëpp a yem na hôpitaux yéen ñëpp a yem tegu leen nit ñi doomu aadama ma ñëwaat si agression bi donc Macky Sall lii foog nga foog si quoi indiwaat d' agressions dañuy tëdd consommer seen drogue bu leen neex tox seeni chute ba heure bu leen neex genre bi ñu yeewu fekk dana situation yi kii ñu jëleen ñu loolu dafa yomb a tot loolu di bay baa bu dundee non démb mu xool affaire dama métti quoi mu xool photo booy bi sama yaram dafa daw quoi ah te ay géré la ah jël seen alal noonu nañ dëgg ñu jixaat ko bu dee àjjana la jëm parce que loolu mooy bëgg lu yomb genre bi lay coupe coupe yor say ils sont ils sont minables quoi jël say coupe coupe yor say

peut-être kooku il a commis une agression ko xawla xammee nekk nii wala nii ñii parce que les imbéciles te rëbës nañ ko bàyyi noonu noonu parfois ñenn ñu leen nii mais ñu chambre yoo xam ne ñii ak ay bugazeli genre doomaram yi ñu jël leen yóbbu leen foofu dajal leen fa parce que ñooñu foofu mooy seen place ñi am ay vol yu ndaw ak yooyu noonu ñu xool leen nii mais ko war a catégoriser ah mais ni ni ni ñii c'est des imbéciles quoi moom sama gars là loolu ma tu vois vraiment tey dama merde quoi parce que affaire vraiment dama mer trop trop trop affaire bi sama dama dama dama jëlee kaw quoi vraiment muy mu concevoir nit di teg yenn nit di ba nit la nit na la mën a yeggee si stade bi quoi di def yenn ñaawteef yi nii quoi Hein? Donc c'est c'est c'est dommage quoi xool boy bi 18 ans 18 ans peu de l'âge tu vois Agresser la jaay la doole toj say bopp tu vois Après ah, par après nag yaa ngi impunité quoi jël le yóbbu le te xamu jàpp leen gars waaye sama gars yi man wóolu naa police bi sax parce police bi moom vraiment ils sont efficaces quoi la police sénégalaise bien vrai sécurité bi doyul trop mais ay jàmbaar lañ ku fi def dara da feeñ te ñii da ngeen feeñ parce booy dañuy ñi ngeen laal dañuy tudd diina lañ ñii boo leen xoolee yoo xam ne ils sont pieux yàlla rek a des ñoom dañu gëm yàlla donc yéen malfrats yi xam nga foo mbaam sax boo fa laaxatu di ngeen di dañ leen jàpp la